Aïcha euh, tey nag euh, xam naa ne di ngeen xam kii mooy Yandé Big Mama waaw ngeen koy gën a xam si série yi ah waaw eh, Yandé nuyu naa la. nuyu naa la Mbaye yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. alhamdulilah. <laughs> sama xarit. sa xarit bu yàgg sax. waaw ay xaritu tey de ay xaritu démb lañu. <laughs> waaw affaire bi ngi dox. waaw alhamdulilah. série mi ngi dox wala euh, aar mi ngi fay wala aar fayul. sant yàlla ñu ngi. ñu ngi nag kii kan mooy Yandé kan mooy Big Maman. Ah, benn actrice la rek. boo mhm. xamante ne day daan doole mag di liggéey. Mhm. di di askan wi. Mhm. di def li nga xamante ne moo neex askan wi. lépp loo xamante ne baaxul tamit mu ngi moytu yàlla xam daal mais ñu ngi moytu daal. Ah, ah, bu njëkk ba loo doon def ba ba nan nga def ba adhéré ñu lay jël ci série da dem di woote di topp di wootee wala di naan ay jël ma wala dañoo jékki-jékki rek woola loolu nag mosuma kaa def hmm, nan nan ngay def bañ bañ woola dama doon liggéey ak ki nga xamante ne mooy daati hmm? daati ah. benn waay bu ñu naan daati hmm. daa doon defal benn genre émission bu ndaw après ci la ma pot gis foofu ci la ma waa Marodi jël ma liggéey ak Marodi quelque temps ma bàyyi waat ma bàyyi nga bàyyi woon xaalis wala non du xaalis sax mais boo nekkee ci bërëb. Mhm. joxuñ la fa sa gëdd. Mhm. te euh, métti woon naa da fa nekkoon. Mhm. laajoo leen ñaar nga dem ba ci biir. santiroot sa bopp foofu. genre teguñ la fi ñu teg nit ñi da ngay daal di bàyyi. wuti ah. leneen ah, parce que li may faral di wax dama naan suñu euh, euh, da ngeen di wut siiw ba si wut wut si leen léegi ngeen bëgg a laaj xaalis parce que daaw leen laaj xaalis parce que bëgg-bëgg bi siiw rek ngeen ngeen si tàmm woon est-ce que loolu na man musuma laaj siw mësuma laaj xaalis. Mhm. man fu may liggéey dama fay liggéey te yàlla tax. Mhm. bu ma liggéeyee te yàlla tax. Mhm. mais nag euh, du ma liggéey foo xamante ne joxuñ ma cër xamuñ may kan. loolu moom bu naree am ma bàyyi. mais nangu woon nga ko. mais non non. comme bi may liggéey début. dama doon liggéey ci fi nga xamante ne amul dara. may ànd ak ñoom ci ngor. du dëgg. bu ñu demee ba am as tuut nag yaakaar naa ne war nañ cee mën a bokk ak man lu ndaw la. Ah, mooy depuis depuis série yu njëkk ya ba yi daan daw seen TV nga commencé woon mooy yu yu njëkk ya. waaw yu njëkk ya première saison. waaye yàgg na de li ma lay wax nii yàgg na de. Mhm. mais taxul ne tamit waruma fenn pour di woote fu nekk tamit pour ñu jël ma de. Mhm. mais buñ ma jëlee tamit dinaa dem xool bu dee mhm. casting bi arrangé na ma. ma dem bu ma arrangé ma def bu ma arrangé wu tam ma xam ne arrangé ma mais lépp daal ci fulla ak fayda. léegi euh, mais lan moo tax ñu naan euh, xale yu jigéen ñi dañoo bëgg a siiw xale yi jigéen yi ah siiw wutuñu si xaalis wutuñu si dara euh, ouverture lañ si wut pour jëkkër bu baax wala far bu baax wala est-ce que yow loolu la si tontu. ah xam nga nit ku nekk ak li koy yóbbu rek ci mm-hmm. milieu. Mm-hmm. nit a ngi jug di liggéey te yàlla tax. Mm-hmm. nit a ngi jug fu la yóbbu ko. nit a ngi jug pour am dara mais tamit nit a ngi jug pour tamit dara tax. ku nekk daal yow ak say raison nee xale yu jigéen ñi ay farantu moo leen si yóbbu xam nga pour am nit ñu baax ñu leen di far xam métier bi kii lañ ko def ah, ah, maanaam di dañuy mbubboo kii pour am ay far loolu ay wax la rek ah, ah gaa yi koy wax de man nag mënuma toogal ku nekk di ko wax euh, li nga xamante ne moom moom moom moom moo ko tax a jug mhm. xaw ma ku nekk lan moo la tax a jug mais man mhm. bu may wax sama bopp laay waxal waaw mhm. man moom bi may dugg ci milieu farantu Mm-hmm. it mbay ñun dañoo ñàkk ñu ñu nopp ba ñuy dugg ci milieu pour ay góor du ñu nopp ah am na fi xale jigéen yi xale jigéen yi di kii di mm-hmm. waay yow di di rayante man sama téléphone bi séew ma séri mais ku ne fay mooy woo boole maag bi bili boole maag kii boole maag diw saqlement yi ni fee waaw mais ku nekk ak sa jikko rek am na nit moom ak jikkoom moom ba mm-hmm. bàmmeel rek mais tamit am na ñoo xamante ne tamit dignité dugal parce que nii la woon ah lii lañ doon wax ñoom kat yi ak sime xaw ma kii ah ñu ne ñu ne dañoo bës dugal leen si jékki-jékki ñu jékki-jékki nekk star comprendre nga. Hmm. ah fayeku ñu affaire métti ñu daw bari bàyyi a ah, yow fi mu nekk nii est-ce que yaa ngi série ba tey yaa ngi yaa ngi man maa ngi joué ah parce que maa ngi joué ak euh, ak Soulker maa ngi joué ak Billy. Mhm. maa ngi koy instant bi ci moom laa nekk. nee nañ Billy moo la bàyyiloo moo la xuloo moo da ngeen a xuloo da ngeen a xuloo yàgg yàgg ay mari ñoom mari so xaw ma kii xaw ma nu mu tudd Pod. moo tax nga gé nga bàyyi. parce que sa complicité ak ak ak moo tax. Billy de bàyyiloo ma kenn Billy. Mhm. nit ku baax la. Mhm. kooku de bu la jàppaloo nit du la bàyyiloo kenn. Mhm. Ah, mais tamit nag. sama xarit la tamit mais il faut ma ma ma kii. non non kooku nit ku baax la bàyyi Fall la yow. kooku du mm. dugg sax ci ay waxu nit. mais nee na na moo la bàyyi que si ah, euh, yaag Marichou nee nañ sax euh, euh, dégg naa sax si wéyum ñu ne yow yaa ko tëggal yaa ko ah. que sa sa bay bi. <laughs> ah ci wéyu ko ah, nee na yaa ko yaa ko may. waaw demal ci ñi ko wax ñu leeralal la. parce que mm-hmm. xam nga. sa diggante ak lan la dafa yàgg wala lu yàgg la wala si série yi ngeen xamante lu yàgg trop la série boolewuñu man ak ah avant série avant série la maag moom yaa ñoo yàgg torop torop uh-huh. torop sama uh-huh. copine la sama xarit la macha allah uh-huh. mm-hmm. mm-hmm. euh, léegi nga série yi dox ba nga am si oto ba nga am si lépp ba pare euh, léegi mba est-ce que du lii oto yi ngeen di dawal ah ak euh, sañse yi ak di dem Dubaay dem wër Europe est-ce du xale yu jigéen yi loolu yéen yéen ay dof loo xale yi jigéen dafa mel ni mais nag kaay ma xamal la Serigne may wut oto. mais lan moo tax yéen di ngeen nekk si si di dawal oto di sol yëre yu rafet. di dem di seen wàllu valise ah. mais du du taxaw nag caméra wa da ngeen naan dañuy dañuy def lii ah ba lii fekk ñu si def lii parce que xale jigéen ñi ngi dof ndax yéen. mais mbay mhm. fii gis nga liggéey rek mooy maye lu bari. Mhm. man tey nekkuma ci série yi kese. Mhm. kañ xamul kañ laa gëj a dama yor sama jaay di ko jaay. ah lan ngay jaay mhm. maa ngi jaay produit maa ngi jaay yëre góor maa ngi jaay yëre jigéen. Mhm. amoon naa boutique mu sori ma tëj ko am naa mhm. sama côté fii benn boutique. man daal daan doole rek laa gëm. série moom mënul laa may lu nekk àññi. peut-être bëgg-bëgg rek la. mais aussi tamit yàlla rek mooy may ndax nit nekk na ci série ba bàyyi bëri na fi te amoo oto amoo dara. waaw ah, mais jigéen ñi rek ñoo siy tekki parce que série yi ñi rek a siy tekki parce que jigéen ñi ñoo siy dawal oto ñoo siy dem voyage te xam nga loolu lu doy la war da bax euh, da ngay gis artistes yi sax fi nekk nii ñu ngi leen di dut baaraamu tuuma nee yen yéen ah, da ngeen a war a bàyyi ñoom ñoo war a jiyee parce que yéen jànguleen leen théâtre jàngu leen dara ñëw bëgg nangu bës bi si ñoom mais ñun waxuñu parce que ñun yàgg nañ ci ñun depuis 2015 ñu ngi ci. non non mais jànguñu du ngeen artiste da ngeen di jékki-jékki da ngeen jékki-jékki rek ñu. mais talent talent am na ci. nit nit a ngi juddu rek ñu tëbal ko classe. Mm-hmm. mën nga juddu tey mosoo jàng. Mm-hmm. nga ñëw ñu dugal la wala C2. Mm-hmm. te pourtant jàng ko loolu yàlla moo koy def ci yow. bu ñu fàtte ne tamit yàlla am na de mbay. ah, ah euh, mais nee nañ yow aayoo sa sa kii sa xoma sa jekkaay la ñuy exploité si yow. <laughs> man damaa aay ba tiit. loolu <laughs> gis ñu ngi koy wax nee nañ ñu aayoo yande lan moo tax ñu bëgg ñu ko forcer parce que li mu jekk moo tax ah li forme bi kii moo ñu bëgg a kii ah. ñu eh, bu may joué damay fàtte ne sax am na lu nekk ci man. mais gars yi ñu ngi yow ma ko wax. Ah. man bu may joué bañ naa ko ba xooluma rafet xooluma dara. mën mm. naa sax joué ak ay renversé rab parce que dama koy dund. Mm. loo xamante ne dama koy dund la lu may joué la di ko dund. Mm. man ku ma xam ne. mënuma nag ndax kenn mënut yàlla rek moo mën mhm. waaye maa ngi jéem te maa ngi bëgg samay fans mhm. loolu rek moo fi nekk leneen li ci des moom ay détail la mais bi ngeen bi ngeen weroo ah, euh, pot pot meru kuy kooku pot pot mooy kii seen patron bu njëkk ba pot fee Marodi pot lu muy mer mu ngi ci liggéeyam maa ngi sama liggéey bu meree waane woon mais ah mais mais tamit mais mais da ngay xalaat pot pot pot moo la def star tamit xam nga non pot def ma star moo la def star nag ah yéeg yàgg yëpp moo bota def star yàlla ma def star ah. de pot defuma star yàlla boole woon nañu maag pot mu dem ma dem mais ba ah. tey ñu ngi si jàmm ah, ñu ngi déggante si jàmm sama gaañ la mais pot defuma star franchement am na benn maire bu génn xaw ma kan moo génn keroog ne pot du fay fu keneen koy am na ku génn tamit fan yee passé ne pot du fay xam nga séeri ku day lekk xaalis nit ñi est du loolu ngay dëggal ah xañ na fayu leen ñoom. ah yow yow yaa ne gisatoo sa bopp moo tax nga waa gisatu gisatuma sam bopp ak fayu ma du benn. ñooñu boo gisee ñu wax ko xañ na danañ fayut moo tax. mais maa pour sekkuñ yooyu de. ah sekku leen yooyu da ngaa dem rek mu dem mënatoo liggéey ak moom rek nga dem. waaw dañoo toog rek. Mhm. après ku nekk gis feneen sa bopp rek ku nekk dem loolu mënul ñàkk ci milieu bi. mais bi nga demee après nga woo bili bili woo la ne la kon kon yéen di yéen a da ngeen a xar da ngeen a def man daal affaire yi <laughs> eh, xaaral ma tëjee sama gémmiñ parce que parce que lii laa fi defoon a ah. <laughs> ah ah. surker daal xaar ko surker dina toj dëkk bi incha allah. surker ah. yow Billy moo ko produire. yéen daal su ma dafa mel ne <laughs> da ngeen a da ngeen a xaaj da ngeen a xaaj euh, euh, Marodi def léegi jàkkaarloo la daal maanaam yéen yaa ngi Marodi surkel ak ak waa Marodi ay jàkkaarloo ngeen. non jàkkaarloo même pas. ah jàkkaarloo la parce que yow Mari Marichou dañ daan seetaan kii moo taxoon ñu bëgg ñu bëgg euh, ñu bëgg. sëriñ boobu non mais Marichou tamit da xam ne dafa am jëkkër te jëkkëram dafa am maison de production tamit xam nga sama bopp mën na gënal du bañ naa la Marichou tamit newuma la ko ko wóolu dem